asalaamaaleykum mbokk senegal ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal di amaan mbégte aussi àndaat ak yéen ci vidéo yi ngeen di defal ginnaaw bu ñu jàngatee programme juróomi candidat yépp comme nuñ leen ko waxee dañ leen defal vidéo ci programme bu nekk ñu tënkal leen ko defal leen ci vidéo waaye vidéo bi dañ koy jagleel li nga xamante ne mooy programme Ousmane Sonko donc programme Ousmane Sonko bu ñu xoolee li ci gën a fës manam ponk yi ci gëna a fës faram-fàcce ko dañ ci japp ñaar manam économie ak bonne gouvernance manam kom kom ak yorin bu rafet bu sel donc buñ tambalé ci li nga xamanteni moy mooy kom kom donc économie dafa am ñetti patch lu ñu wax secteur primaire secteur secondaire ak secteur tertiaire suñu xoolee Sénégal ñun suñu économie dëkk nu mu tëggoo économie tertiaire bi moti, moo ci ëpp solo

secteur secondaire mooy madame lu jëm ci transformation industrialisation création de valeur pour mën créer ay emploi donc loolu moom moo secteur secondaire donc Ousmane Sonko dafa jàpp ni suñu bëggee am économie boo xamante ne dina jëriñ Sénégalais yi jëriñ Sénégal donc il faut que ñu jàppale ñaar ñooñu ba nga xamante ne ñoom dinañ mën def seen liggéey ci anam yu nu aussi il aussi ba nous ñu structurer suñu économie ci lu jëm ci wàllum PME et PMI maanaam bërëbu liggéeyukaayu ndaw ndawaan yi

jëm ñaajo par exemple ñu xayma ko mu nekk ci lu toll ci cent milliards de francs CFA mu ne loolu bu ko bëggee financer par exemple nga am cent sénégalais yoo xamante ne ku nekk jox na la un million su boobaa dinañ mën a tabax autoroute bu mel noonu ba pare tarif yi ñu fay appliquer kon tarif yi ci autoroute bi dinañ ko mëna a wàññi loolu doon koom-koom bu jël wati ci sénégalais yi mais aussi la ciy génn ci bénéfice aussi delluwaat ci ay doomu Sénégal nga xamné manam maanaam koom-koom aussi dina delluwaat ci biir Sénégal donc batay ci walu financement aussi mu japp ni banques yi war nañu gën mëna jappalé entreprise waye comme banque commerciale yi banque centrale mo leen di lebal xaliss lu ñuy wax taux d'intérêt donc taux d'intérêt bobu boobu lu mu faible taux bi banque commerciale yi di prêter entreprise yi su boobaa aussi da fay gëna wacc loolu tax mu japp ni kon il faut que ñu am benn politique monétaire bo xamante dinañ mëna jouer ci

ñi fay génnee seen xam-xam ak seen compétence dina méngoo ak entreprise yi ñu soxla ci wàllum ressources humaines maanaam ñi fay génnee nga xam ne dañuy nekk ñoo dañuy opérationnel directement bu loolu weesoo mbokk yi ñu jàll ci deuxième ponk bi maanaam wàllum bonne gouvernance bonne gouvernance ndax Ousmane Sonko dafa jàpp ni bépp doomu Sénégal bu ñu tànn dénk la ay responsabilité jaadu na tamit ñi nga xamante ne ñooy saytu maanaam nu ñu yoralee doxin wi

de fi bëgg a jëlee li nga xamante ne moom la ñuy wax conseil constitutionnel créé beneen bu bees bu ñu wooyee cour constitutionnel cour constitutionnel boo xamante ne lépp lu jëm ci wàllum yoon Sénégal loolu moo koy féetee kaw maanaam mooy nekk ci baxtal ba féetee lépp kaw ba nga xamante ne su boobaa cour constitutionnel boobu noonu président de la république du ci bokk kon su boobaa président du am benn rôle bu muy joué ci carrière magistrat yi ndax su boobaa jàpp na ni kon dinañ mën a am lu ñuy wax justice indépendante Sénégal kon mbokk yi ci tënk ñaari ponk yooyu lañ andiwoon ci programme Ousmane Sonko di leen sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous bu beneen yoon bu suñu borom àndee jàpp leen ne dinañ ko def ci candidat yëpp jërë ngeen